di war a tolloog laayay juróom-ñeent fukk ak ñeent ca suratu nisaa yi ba tey quatre-vingt-quatorze sunu borom tabaraka wa taala di wax ne yaa ayuha alladina aamanuu ida darabtum fi sabilillahi fatabayyanuu wala taquluu liman alqaa ilaykum alsalaama lasta mu'mina tabtaguuna carada alxayaati addunya fa cind allahi magaanimu kacira كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا sun borom tabaraka wa taala nee na yéen ñi gëm su fekkee ne da ngeen a tukki ci yoonu yàlla di jihaat fata bayyanu mépp mbir mu leen gaar bu leen yàkkamti na ngeen ko wóorliku ndax kat mën ngeen a génn gis ab jullit boo xam ne dafa nëbboon ngëm yàllaam ci biir aw nitam ngeen dajeeg moom mu jaxasoo ci biir yéefar yi ngeen yàkkamti boolewaale ko ci te fekk ab jullit la kon dee leen wóorliku kenn par kenn ba xam ku dib jullit ak ku dutub jullit te képp ku ngeen dajeel mu ne leen asalaamaaleykum jàpp leen ne jullit la bu leen wax mukk dajeeg nit mukk mu ne leen asalaamaaleykum ngeen ni kii daa bëgg a mucc moo tax mu wax loolu di ko rey ndax lu mel noonu daa xewoon moo tax laay ji wàcc wala taqulu liman alqa ilaykum salaama lasta mumina bul fekk mukk ku nangoo dajeeg yow defi jëfi jullit wala mu wax waxi jullit nga ne ko yow gëmoo dangaa bëgg a mucc fekk la ko waral tabtaxuuna arada alxayaati dunia fekk rek poñetum adduna moo tax ndax kooka am na lum yor ci xeeti gànjar wala xeeti alal te xam ngeen ab yéefar bu jullit ba reyee ci jihaad lum yoroon moo ko moom loole mu yor ngeen soxla ko ba mu tax mukk ngeen ne ko doob jullit ngir bëgg ko rey bëgg a jël lam yor loola lu ñàkk solo ndax ci àdduna lay am ndax yàlla moom la mu yor loolaay la am solo fa inda maganimu kathira su fekkee ne da ngeen a bëgg màng téef muy poñatum fii ci àdduna xam leen ne la ngeen di màng ëllëg ca àllaaxira borom di ko fay mu nekk ab yoon loola la am solo te moo bari borom bi tabaraka wa ne leen kadalika kuntum min qabl leen su fekkee ne kii ab jullit la buy nëbb ngëm yàlla am yéen ñii noonu ngeen meloon yéen ñii ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu ngeen meloon tollu ngeen jamono yoo xam ne am na ci yéen ñoo xam ne dañoo duggoon ci lislaam di nëbb seen ngëm kon noonu ngeen meloon bu jëkk wala sax doon leen woon ay jullit fa man allahu aleykum yàlla defal leen xéewalug feeñal lislaam ba ñu doon nëbb mën a feeñ defal leen xéewalug ñaweddi woon mën a dugg ci biir lislaam kon fa tabayyanu ma ngeen wóorliku bu baax a baax a baax ba du ngeen jalgati inna allaha yàlla kat bi ma taamaluuna kaana bi ma taamaluuna xabira borom bi tabaraka lépp lu ngeen jëf xam na ko lépp lu ngeen jëf xam na ko jëf jooju nag làmboo na jëfi xol làmboo na jëfi làmmiñ làmboo na jëfi cër kon daal lu ngeen xalaat wala lu ngeen wax wala lu ngeen jëf seen borom tabaraka wa taala xam na ko laa yaxfa alayhi shay dara mënta nëbbu ko yàlla lii la ñuy aaya ji jàngal tey nu war cee jàngat noonu itam benn boroom bi mu ngi digal jullit yi jihaat ne nañuy wóorliku tey nemmiku mbir yëpp ak lu mën a doon te bul fàtte ne ca laaya weesu dafa digaloon ñiy jihaad ne leen nañ wattandiku nañu wattandiku kon boo ko jëlee boole ko ak wóorliku wattandiku ba kenn du la lor waaye wóorliku ba doo lor kenn loolu moo jokkale ñaar yi yaa ayyuhaa llaziina aamanuu yu sosiyo yi ñaareel ba gannaaw boo xamee ne mi ngi santaane ak wóorliku gu matale da koo jagle it nag ci ñi nga xam ne da ngeen di daje ñoom te yoruñu màndarga yi jullit ngeen dem ba jàpp ne jullit lañ ñu jékki-jékki feeñal màndargam jullit loolu bu tax mukk ngeen weddi ay jullit lañ dinaa feeñal la jullit teew bu saahir nga xam muy li ci bitti nangul ko ak ngëm yàlla am ndax kat amaana dafa gëm ba noppi di nëbb ngëmam ñetteel bi kon danañ jàngate ci laay ji kon ya bañ a yàkkamti ci àtte kenn adamu taajul fi lxukmi ala al afraadi wal jamaat bi xukmin salbi li mujarradi wujudi qarinatin muxtamala mun ñu bañ a yàkkamti kon ci àtte kenn wala àtte menn mbooloo ci kaw dañoo gis menn màndarga rek daal dinañ yi yeex na baaxuñ te màndarga moomee mën a jamtalu luy nuru dëgg mën a jamtalu luy nuru neen su boobaa mën nañ ko daal di baña a euh, féetale rek ci neen te xam ne mën naa doon dëgg itam loolu lim lay jural mooy teey bañ yàkkamti ci atte ñi ngay dajeel wala li ngay dajeel wala ki ngay dajeel loolu yi nag lu am solo la ci jamono ndax lu bare bari yàkkamti dana dugal nit ci mbir mu wax ci wala mu jëf ci ba noppi wëlbatiku gis na lam doon wax lépp wala mu di ko jëf ay neen la mu wëlbatiku nag di réccu ñeenteel ba laay ji mi ngi nu jàngal doyadi gi àdduna doyadi ak li ci biiram ak màgg goo xam ne la fa sama borom tabaraka wa taala ci nekk la nekk fa sama borom ci ab yool ak tuyaaba màgg ga nga xam ne màgg na ko ndax kat ginnaaw lii nga xam ne mooy poñetu àdduna dafa woyof lool ba noppi mu ne la porom ba tabaraka wa taala moom maxaanimu kathira ma nga fa moom kon loolu moo lay won ne àdduna amul solo yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngaloon nanu ko nee woon su fekkoon ne àdduna ak li ci biiram toll na ne laafum yool yoo ci importance fa yàlla kon yàlla du ci jox am yéefar am ndox mum naan benn góox sax du ko jox juróomeel ba jàng nañ ci laaya ji ne yi war a tax nit ki am yërmaande ak mën a muñ bokk na ca nit ki fàttaliku ne kii mu jaamaaru jàkkaar lool di ko woo ci aw yiw moom mii koy woo ci yiw wi jaaroon na ci lu mel ne lim jaar moo xam kee muy woo daa doonub yéefar te moom mu doonoon ko ba ñëw ci ngëm yàlla war naa fàttaliku ne moom mii di woote doonoon na bu yéefar démb wala moom mii yàlla da ko baaxee mu nekk ci sunna kële nekk ci bidda biddaa muy fàttaliku ne moom mii kat biddaa bee waaj nekk nekkoon na ci wala borom bi da ko war sëgale muy topp yàllaa ko yonentam gis koo xam ne mi ngi mooy yàlla mu fàttaliku ne moom mooy yàlla gi waajuroon def moom it doon na ko def yooyu di ko fàttaliku li muy jural nit ki mooy mu mën a muñ mën a gàddu aw tiis aku metit woo xam ne dana jóge ci ki muy woo ak di ko gindi bu jëm si ci lislaam juróom-benneel ba laay ji jàngal nañu xam gi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala xam na ko mbiri jaamam yi muy la weesu ak li teew ak liy ñëw ab xam-xama amul frontière juróom-ñaareel ba su fekkee ne jaam bi xam na loolu xam ne boromam xam na léppam mu xam ne moom mii jaaroon na ci melokaanu yi muy woo di ko biir ci lislaam wëlbati ko xamaat gàttañ lu ko wax ne gàttañ lu na ko ci fii mu toll nii nga xam ne yi ko war yépp def wëlbati ko xamaat ni ci kanam kat moom xamut luy ñëw ndax moom mii dëgg la mi ngi ci siraatul mustaqim tey waaye yàlla moo xam ëllëg ci lu muy nekk kële muy waar ak di ko woo ma nga nekk ci ak ndëngte moo xam ci pas-pas la moo xam ci jaamu yàlla la waaye kee nekk ci dëngte xamut ëllëg mooy jubam déet moom mi mu dëng yooyu nag bu ko xamee nit ki day ànd ak tiitaange di jóg rek di def li ko yàlla defloo waaye boole ko di tàllal yàlla ay loxoom di ko ñaan mu saxal ko ci diini ji ni ko yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee laaye ji ci juróom-ñetteel bi soññ nañu ñu bàyyi xel sunu borom tabaraka wa taala ci yéene ak ci wax yi ak ci jëf su fekkee xam nañ ne borom bi tabaraka wa taala dara réeru ko ni ko waxee ci laaya ji inna allaha kaana bima taamaluuna xabiira jëfandikoo sax aliman mënoon na ko jëfandikoo foofu waaye xabiiran la jëfandikoo dafa ñàkk kumpa dafa dañ kumpa amul dara dara dara ci kumpa ci li nga xam ne yéen a koy jëf wala ngeen koy fas wala ngeen koy wax loolu su ko jaam bi xamee lu muy dugg lu ne dana xool ba xam lii lu yàlla daganal la am déet ndax lu yàlla bëgg la wala lu yàlla bëggut la kon mel na ne ñoo ngi bëgg a xaabaabal ci waxtu bi te ñu ngi nuy junj dina wax ne waxtu wi jeex na nu ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu dajale nu ëllëg ci beneen jataay nu taxalu foofu kon wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh